Euh, tey euh, jëfin wi nga xamante ne ne euh, Déthié Fall def na ko ndax bett na la. surtout Déthié këppul dara. moom moo xamutoon ne day dem mais ñun xamoon nañu. xamoon nañ ko bu yàgg. <laughs> Badou. yëgoon nañ ko de ndax nag fii liñ naan daara yi léeg la guddiwu nopp jaru fee jaay fii senegal la. booy dox guddeeg booy dox bëccëg wax dëgg yàlla yaa di radar un peu partout moo tax doxal lu wóor rek ba bu ëllëgee bu ñu la dabee di la ko fàttali doo weddi. Déthié moo xamutoon day dem mais ñun xamoon nañ ne day dem te man nag ci kaawu Déthié man duma dugg ci euh, querelle de positionnement parce que loolu acteur politique yi ñoo ko moom mais désormais ñun journalistes yi dafa am anti valeur yoo xam ne bu ñu posé yenn actes yi ñun dinañ ko jàngat avec froideur te duñ ci dem avec sentiment mhm. parce que Sénégal dafa jot nit ñi ñu inculquer leen les bonnes valeurs fii bu fi kenn dox ci xelu kenn euh, maa ngi doon dégg démb suñu grande sœur Aïssatou Diop tuddee ko gàcce Fall donc buñ ko waxati Déthié Fall nañ ko woowee gàcce Fall parce que lii mu def nii gàcce gënu koo rëy ànd ak say nawle ngeen indi coalition boo xam ne tuur bi rek tënk na gor mooy sàmm sa kàddu parce que Déthié bi ñu koy boolee ci coalition boobu dafa joxe kàddoo am président ñu rek dugal ko ci coalition bi parce que dafa ñëw noonu ñu forcé ko ko moom moo toog ay nawle gorom wax ak ñoom ñu tënk kàddu. c'est lui qui a donné le yi wax nañ ko. raison de plus. nga joxe turu sàmm sa kàddu. te amoo kàddu yow sàmmoo sa kàddu. te amoo kàddu kay. defoo kenn dara yow sa bopp mu ko def ndax sa quinze mille électeurs yooyu sax mën na par accident la woon te bu ñu demoon élection mu leer la donc yow amoo sax lu mat benn député pour man yàqalul sàmm sa kàddu mais. dafay dafay rendre service ñi nga xam ne ay républicain lañ te nee nañu faites attention ci yenn homme politique trajectoire u Déthié Fall man damay ñëwaat rek daaw jamono bi ñu jàppee Ousmane Sonko toog naa fii ma ne ana Déthié Fall mhm. kan moo gisoon bi ñu jëlee Ousmane Sonko jàpp ko dugal ko ci kaso bi Déthié Fall pendant deux ou trois mois ban sortie médiatique la def ban activité la def de soutien à Ousmane Sonko bi ñu ko nee ràpp waxuma bi ñu ko barricadé de bi ñu ko nee ràpp ci kaso bi montrez-moi c'est pour vous orienter dégg nañ ko fi mu def conférence de presse weddi waat ak yooyu bu mu ñu wax loo. dëcc waroon nañ ko am régie bu ñu amee vidéo bu ci kanam xëy na dinañu may tuuti ci ci ci ci vidéo boobu. waaw mooy bi muy def. conférence de presse di di wax ne ab góor la très bien bu mu ñu yëngal. bu mu ñu yëngal bu mu ñu wax ju yegg nag am nañu ko moom mais ku xool trajectoire am xam ne lii mu def nii du lu war a mën a bett kenn. nga demaat digganteem ak sa set lu fam la fan la yàq mooy bi Idi duggee ci gouvernement joxewu ko comme ministre fii la ñu lépp fekk. Mhm. Idi bi mu ànd ak président Macky joxe ñaari ministre Aly Saleh Diop ak Yankoba Diattara de ci ci la demee di. waroon nañ koo tànn. xëy na buñ ñu ko tànnoon coow du jub. kon bu mu toog fii naan ay conviction laay demee bu mu ñu sonal il faut pas qu'il joue avec les mots en français. il a posé un acte fort mais naka bir ni il nous a aidé parce que langue politique bi il faut ñu xam bukk yi sàngoo deru bay te loolu yëpp ci mbappat rek lañ ko mën a xamee mooy moment yi ak enjeu électoral yi su taxawee ñu seet ku am conviction ak képp koo xam ne da ngay naxee do Déthié nous aide pour ñu xam de quoi il est capable en politique et en compagnonnage mais aussi Déthié ñu nous aide en nous montrant que l'actuel pouvoir lépp lu ñu renier woon tey ñu ngi koy def le cas Djibril Gning yeewi askan wi bi mu amee fan lañ ko yuuxuwul te kooku simple mandataire wu noor bi la woon mais kii ku ñu investir ci liste nationale mu bokk ci membre fondateur coalition mu xëy wor avant ñuy dugg campagne euh, électorale Pastef nee na woon euh, transhumance du ko boole mais li dëcc def boo ko tuddeewul transhumance ban su yow ban xam-xam nga mën a teg ba justifier li dëcc def ci leneen lu dul transhumance président yow mi am expérience Déthié li mu def bu dul transhumance lan mooy transhumance du mooy jóge ci opposition dem ci pouvoir mais mais mais mais <laughs> ndey tey am na tey tey peut-être ndey am na ñoo xamante ne tey ñu ngi euh, justifier le fait que mu jugee ci opposition bi dellu ci bi euh, fi nga xamante ne moom moo di euh, peut ci pouvoir bi ñu jàpp ne erreur erreur de defoon ci ci ndorteel bi ndax place am du woon foofu par rapport ak tey ñi nga xamante ne ñoom ñooy jéem a justifier geste bi nga xamante ne walla comportement bi Déthié Fall def tey ji ci biir coalition bi Déthié bu dee li muy wax dëgg la ci moom mars ba mu nekkee candidat Ousmane Sonko génn ak basiiru Diomaye Habib Sy bëgg a renoncer candidature ak euh, Cheikh Tidiane Dièye conseil moo leen ko bañal mënoon def noonu bu dee tey jii li mu posé nee woon fii du place am fee mooy place am pourquoi bi ñuy génnee moom bëggutoon suspendre sa candidature pour jàppale jomaay Faye ku ñuy nax ñii kan la ñuy foyee lu mu mënutoon mars léegi tey la ko mën. c'est parce que ñii jot nañ ci pouvoir donc tey la ko mën donc il faut être simple Déthié Fall trahir na waa sàmm sa kàddu mais boppam la trahir parce que borom xel yi ak sénégalais yi nite yi dinañu jàngat façon action yi xam lan lañ ci war a mën a jël comme enseignement mais aussi ñi nga xam ne ñoo nekk au pouvoir valeurs yi ñu doon jàngale li ñu doon wane ndax loolu lu dëggu la ci ñoom parce que ku mën a accueillir un traître parce que ça c'est de la traîtrise on ne mënuñu am beneen mot buñ ko mën a tuddee on ne veut pas être vraiment incorrect ñaanuñu yàlla di incorrect mais quand même ce qu'il a fait c'est un acte de traîtrise léegi nag un traître que l'on accueille loolu antivaleur la yow boo ko ak accueillir nga xool ndax loolu di nga ci gagner capital de sympathie c'est ça la question yi taar yu bon la ñu yàgg ko gis ci acteur politique yi foogoon nañ ne wan nañu ginnaaw mais tey bu koy propulser mais les Sénégalais vont en tirer des enseignements pour Déthié defuñu dara bettul kenn ñun xamoon nañ ne Déthié day dem loolu mooy coup de bi te bu ñu dem ba ci kanam dinañ waxtaane coup de cœur dans la vie y bien et le mal am na ñoo xam ne ci le mal la ñu militer mais am na ñoo xam ne ci la bien la ñu militer saa yu ñu yeewoo poser des actes yoo xamante ne day renforcer ce qui bien. C'est important, euh, euh Daifatou. Alors, euh, président Lamine Gueye, sur cet acte, est-ce que celui qui a quand même à six mois la ñu jóge ci élection 54 pour cent nga ne dangay dem ak sama liste bopp euh, di Pastef kese dew ma ci bannière coalition mais ci sama bannière laay demee mais est-ce que kooku il a besoin euh, de prendre ay militants ay ay yeneen i euh, sympathisants wala yeneen parti yoo xam ne dañuy ñëw pour apporter ko soutien d'autant plus que ñoom ci seen bopp ñoo njëkk a bannir li nga xamante ne moo di transhumance alors C'est difficile de parler après Ndeye Fatou. Elle <laughs> <laughs> essayer. de voir avec la complicité de la régie la vidéo bi nga xamante ne peut-être euh, ki la di Déthié waxoon na ko muy première sortie bi mu njëkk a def ak euh, média yi après ñu dellu si ni àdduna du am mukk mukk mukk ak suba ba ma war nit xajul ci sama yaram dafa xajul ci sama yaram gis nga am na ñi nga xam ni valeur ci ñoom du xaalis valeur ci ñoom du matériel am na ñi nga xam ni valeur ci ñoom mooy lépp li nga xam ni aju ca la ñu woon Sénégal mooy dignité honneur dignité et honneur loolu moo fees ci ñun loolu rekk la ñuy doxee ak koo mën a doon cib àdduna loolu rekk lan lay wan ci sa kanam dignité ak honneur loolu dama bëgg mu leer parce que doo mën après lépp lu ñu indiwaat ngay ñëw toog di wax parce que baaxoowu ma sama kàddu barewul alors euh, kàddoom bariwul moo tax euh, tey itam bi mu génnee ñëpp gis nañ ko euh, ci li mu wax par rapport ak kàddu yi mu wax bu yàggul dara mën nañ wax ne